wooyee Fatou Aram di ma dàkkantale sama yaay waaw ñun law bi dañuy dàkkantale léegi nag man maa jur yaayam maa jur baayam ndax maag baayu xale bi ñoo bokk benn baay xale bu góor bi bu ko jur maag baayam ñoo bokk benn baay maa ban quartier la bii quartier ma yoro sàmm yëmbal asak naa asak naa xale bi nan la tudd mama sow la tuddu waye pap sow lañ koy wowe mama sow waye pap sow ñata at la ak yéen ngon man toog ma ak yi sax ok waaw yàpp legi yow lo mën wax ci mbir mi rek limi ma wax ci mbir mi mhm. man ma si jaarem la la jaayee jën legi nak tànk yi dafa dafay nekk may jaay fi ci soo ko def bi ma xëyee lal sama ñay di jaay mom pap sow dal di génn bi mu génnee xale bi jiit léegi moom ñëw ci kër gi naan ko boo dee góor génnal man ko yow loo jotee kii mu ne ma bu dee góor rek mu génn man ko yow demal xuloo wunu xeexu na dimbale ma rek te yàlla ak yonent bi tax fi mu waxee loolu Pape Sow dal di fittal ni ko traverse bi sama mbokk rek mu jam ko paaka ma ne ko lii nag Pape Sow ni ma woy jam na ma ma ne ko jam fan la ko jam fii fii maa ngi waaw fii ci xol bi ci ci xol bi la ko jëm nii ma tooge ni laa tooge nii uuf sama ndaay di jaay ban waxtu ci suba waxtu la boobu di jotagu boobu ni ko jam na la mu ni waaw ma ne ko way koom rey na la nii gestu la gis ma daal di ni woy sama doom dee na ay waay lii nu ma koy waxee ndeyam ay nu ma koy waxee baayam lii laa ci am ñu daal di jagatoo tan boom la ñu daal di ñu daldi ko yóbbu fii docteur bi ay bëñ lay génn fi ñu ko fi dugalee rek ak fi doktoor bi génne xam naa man lan doon defal waaye xale bi génnul eseg na xale bi lu muy dog génnul eseg na ñu daal di ne nii may bëgg a dugg ñu ni ma mënoo dugg kii ko yóbbu ak tan boom ki ko yóbbu ak tan boom la solul mbubb solul mbubb mm-hmm. naka noonu ma ne ñu ne ma toogal man leen du ma toog li mu ne ko génnal boo dee góor mu ne ko waay waay doom demal ñu ko yow nu koy xunal demal sa yoon fab sow dal di jóg mooy xale dal di may traversé ak fi mu ko jamee paaka bi rek benn mu dal di ni iya jam na ma de ma ne ko jam mu ne maa ngi toog nii nii ma toogee ni laat xale bu ëllëg ko dal di daanu ñii dal di yuuxu way jam na ko way jam na ko mu dal di sànni fii paaka bi fii la sànni paaka bi ci su ko jàkka ji daal lii laa ci am ma yuuxu wóoy nu ma koy waxe koy fu ma koy waxee ndeyam koy fu ma koy waxee bàyyam. mais xamoo lan moo leen jotee. xamoo ci dara xamoo ci hmm. daal gaaw nag ba bëgg a ñu dugal ko fii deret bi rek laay seen ñu ne muy waqe sotti ma kii kay dee na ñu ne ma deewul deewul mi ngi noyyi deewul avant muy génn fii xale bi dee na ma dem lu waa bu ñu leen damaa bëgg ngeen dimbale te yàlla tax ma gis xale bi. ñun ma ko gis ana papa man ko papa mbuur la iya, ne iya, yaayam la sama doom ji laa àndal ak keneen xaritam bi mu demee ñu di ñu mënu leen koo gis il faut góor ñu di papa sama tulandoo man hmm. magi papa, man leen ko tudde sama tulandoo la jot mun ne ko ana papaam mu ne ko papaam dinaa dem voyage Tamba moom day léegi est-ce jàpp nañu ko wala jàppuñu ko. bi mu dëkkee daw seen kër kër maamam la dugg. bi mu duggee maam mu génn xaw ma moo génne waaye léegi indiwaat nañ ko mu nga police. d'accord léegi nag looy wax police looy wax yoon. ah lu may wax yoon xanaa man juróomu ko maam rek laa damay nekk baayam ñëw ak yaayam. man man la waaye tay bu yalla defé ñu lor seen doom xam nga tay di ngeen am lo xamné nakari na leen tax bo leen sañoon ñu dëgg am dëgg dëgg bobu leen bëgg rek bu fekké ni am nga lo leen ci wax ndax xam Sénégal la nekk te lé léeg lu xawa a doy waar am léegi yeen yi nga xamné ñom ñoo ñom ñoo ñom ñoo yor yoon lan ngeen leen di wax ba ngeen jaarale ko ci yoon am déet am de ngeen di baal ah man awma droit maam rek la maa jur ndeyam nag jur bàyyi waaye maam rek la duma def duma dindi yaayam a ngi ñëw baayam a ngi ñëw ay bokki baayam a ngi ñëw moom élève la woon wala jànguloon école. waaw doon na jàng na ko ay ginnaaw bi jàngatu. Mm-hmm. di liggéey lan bi mu bàyyee lu mu doon def. daa jaay ay fourchette ak i kudd. marché caar waaw marché ambulant la. goro yi ñoom ñaar dañoo xamante wala. ah xale bi de fii la dëkk. mënuma am turam ci koñ bi. waaw mënumaa xam turam nag xale yi dinañ fi waaye xaw ma ci kenn turam xam naa ni daal xale la waaye mënuma la ni nii la tudd. loo mën a wax si sa sët boobu Pape ndax nag ku a xanaa di ko ñaanal rek. yal na ko yàlla lafal cat. yal na rëccu lu mu doon def ci àddina xale bu dafa teel a liggéey dafa teel. teel a liggéey dafa teel a liggéey xale bi teel naa liggéey juróom benn téeméer yi ma yore junni la woon bu ñëwee danaa ma maam lii laa am da koo woon ci pot bi xaalis biy tooy mu dal di ni ma maam mu ne ah mu ne ma condamné baa ngi ma ne ko yow dangaa bëgge andi ma weccikul la ko xànjar ko xànjar démb fii ceeb bu nekkoon si fekk na ma ni ma yow de yaa ngi man ko ki pil sam dama man lawbe ya? mu dal di jël xaalisam man ko ceeb dalan togg mu ni réeréewu ay ceeb damay jënd lu ma neex juróom benn téeméer yee ci des lu ko neex lay jënd bëgg lool lool lool lool muy am di di ànd ak njoleel bu ma sa njaareem xale bi dama ko ñaanal yal na ko yàlla la ko xale bu am jom nag bu teel a liggéey xale bu